leen di nuyu amee internetu Dakar Buzz dem mbégte saa su ne rek di jànnoo ak ci suñuy jotaay ak li ni mel ki ngeen gis nag ñu dalal tey mu ngi wuyoo si turu ba ummi Oumy Coulibaly donc moom à travers rek jumtukaayu xarala yi lay sauver ay bakkan si lii di Covid 19 bi gannaaw ba mu créer rek ak ab application de trasage téléphonique donc ma yu ko Oumy Coulibaly maa ngi leen nuyu di la dalal jàmm si Dakar Buzz bay la nga nuyoon teeg amee internet yi. salaamaaleykum maa ngi yow internet yëpp. si ku nekk si sa tur ak sa sant. maa ngi tudd Oumi Coulibaly. je suis directrice de Gintic une entreprise de consult consulting en IT cybersécurité. et finance et traduction aussi on fait de la traduction. ñu gis la tey nga nga créé ab application de traçage euh, téléphonique euh, si lii di Covid 19 cas communautaire naka la la idée bi dikkee. bon en fait euh, lii du du du lu monde bi parce que je regardais les infos si laa gisee que ni waa Singapour ñoom ils utilisent l'application de traçage. pour mën a réduire seen propagation virus bi si seen dëkk. Mhm. du coup je me suis penchée ci affaire boobu noonu ma ne pourquoi pas ñun tamit au Sénégal ñu am lu mel noonu. léegi j'ai fait des recherches dama dugg je me suis vraiment investie si affaire boobu noonu pour xool seen kii bi comment ça marche. Mhm. léegi jusqu'à ce que je suis arrivée ci page Facebook seen ministère des affaires étrangères. Mhm. et j'ai lu que ni ils ont dit que protocole bi nga xam ne moom la ñu utiliser pour développer seen application bi. Mhm. léegi ñoom dinañ ko mettre en ligne pour que ñeneen ñi mën si jëriñoo. Mhm. ma ne akon ah, li kat kii la hmm, mbegte la pour ñun jeune développeurs yi ñu mën a am. benn protocole bu ñu mën a basé wu pour mën ko am fii suñu dëkk. Mhm. du coup après bi affaire yi génnee ma daal di lancé benn projet bénévole. pour woo yeneen développeurs yi pour ñu mën ak kii defar benn application de traçage fii ci Sénégal pour ñun tamit ñu mën xeex Covid bi. ba ko defee ba biñ ko defee léegi biñ lancé wee appel bi ak léegi ça fait plus de une semaine ñu ngi ciy liggéey. pratiquement léegi mu mat deux semaines ñu ngi ciy liggéey. Mhm. version Android bi pare na léegi. version iOS bi mooy pour iPhone yi mhm. yooyu moo des boobu moo des pareegul mhm. léegi mais n'empêche ñu ngi continuer di si liggéey mhm. bu Android bi moom bi mu paree léegi yàggul sa fait deux jours pratiquement lañu terminé carrément version Android bi. ba loolu yëpp ndax jot ngeen see waxtaan ak jëwriñ bu yaram bi wa ila autorité sanitaire yi. essayé nañ mais amuñu amuñu mënuñ leen a jot en fait. mënuñ leen jot parce que xamuñu fa xamuñ nan la ñuy mën a def ba aw ba man nañ fan lañ mën a aw pour mën leen a jot du coup lancé nañ ko si réseaux sociaux yi lancé ko si page yu bëri pour xalaat ne buñ ko defee ñu xalaat ne bu ñu defee noonu dinañ mën a ale kii xëcc jëwriñ bi ñu dénk wàllu kaaraange bi dina mën a gis euh, suñu liggéey pour mën a jéem a jéem ñoo jàppale bañ déployer application bi fii ci Sénégal loolu leer application bi naka lay demee bi dañ koy télécharger ku si nekk da nga koy am si sa téléphone. Mhm. léegi comme nii ñu toogee nii. Mhm. application bi day jël sa numéro de téléphone. Mhm. daal ko enregistre sama téléphone. jël sama numéro téléphone enregistrer ko si sa bos. mais enregistrement boobu mi ngi koy def de manière cryptée la koy def si sa téléphone yi. léegi yow mi nga xam ne yaay utilisateur bi sax mënoo am accès si données yooyu. léegi bis bu ñu demee ba nga xam ne kenn si ñun xool nañ ko ne dafa am Covid léegi autorités yi d'habitude li kii bi application bi da leen di permettre ñu mën laa retracer xam ñan ak ñan nga toogaloon si diiru 21 jours mooy temps incubation virus bi ñan ak ñan nga toogaloon pour ñu mën leen a woo pour teel jël prise en pour teel a def prise en charge bi. léegi ñoom dañoo am si seen côté dañuy am benn euh, numéro benn pin boo xam ne ñoom kese ñoo koy yor moom la ñuy dugal si sa télé si téléphone ki nga xam ne dafa am Covid d' abord dañ koy laaj ba xam bëgg na partager ay données mi parce que lépp si affaire kii la données personnel protection données personnelles yi. donc nit ki moom mooy jël décision ne moom bëgg na partager ak autorités yi données traçage am yi léegi autorités yi dugal seen pin. bu ñu dugalee seen code PIN léegi mu daal di jël données yi nga xam ne dañ kaa eh, dañ fa crypté woon si téléphone utilisateur bi ñu yónnee ko ci serveur ministère bi léegi bu ko yónnee si serveur ministère bi si lañ koy doog a décrypté pour ñu mën a am numéro téléphone yi nga xam ne toogaloon nag ñoom ñëpp ah, nga wax ko léegi ba ngeen ko tàmbali yéegi yàggul une semaine nga ci wax mm-hmm. donc mën nañoo jàpp ne jotagu leen si gis ay résultats ak si parce que testé naa installé naa ko sama téléphone mhm. installé naa ko tamit si sama téléphone nu jëkkër léegi du coup jot nañoo def kii def jot nañoo def ay test mhm. pour xool léegi test yi boo ko defee sax bu ñu kiiwee ñu ngi koy mën a xool si kii bi si si serveur bi boo ñu xoolee test yi dinañ gis ne dinañ am numéro téléphone bi mhm. am marque téléphone nit ki tamit bi mu yor léegi ak euh, distance bi nga xam ne am nañ ko ak moom mm-hmm. parce que bul tuf lay affaire bi di utiliser mm-hmm. distance bi ci deux mètres la mm-hmm. deux mètres maximum dix mètres mais ça dépend ci téléphone yi loolu niveau de calibrage téléphone yi la si yooyu noonu la ñuy jël pour xool distance bi nga xam nit ki am na ko ak kii bi pour euh, ñu yor iPhone. disponible ko pour ñu yor iPhone. actuellement bu demee si côté boobu la basé woo la ñu mën a def ba mën a xam exactement am exactement ñu amal contact ak pour ñi yor iPhone. ñi yor iPhone seen bos bi pareegul mais ñi ngi siy liggéey. ñu ngi siy liggéey parce que application yi mel nii pour ñu mën a joxe résultat il faut nit ñëpp am ko. plus nit ñi am ko. plus ci lay gën a mën a joxe résultat léegi kon côté iPhone bi ñun ñu ngi ciy liggéey ak suñu ay collaborateurs ba si fan yi di di ñëw normalement iPhone bi tamit war na pare. Mhm, si ko mën a xaarandi. pour iPhone bi c'est xam développement iPhone moo gën a kii parce que day laaj euh, benn application boo xam ne si Apple yi lay am léegi mais ñun comme ay kii lañ yor ordinateur simple lañ yor ay HP yooyu noonu lañ yor du coup. ñu ngi ci jéem ñi ngi jéem a xool ay méthodes yu ñuy def pour mën a am x code boobu noonu ñuy développé ak kii bi mm-hmm. n'empêche ñu ngi woo ay développeur tamit yi nga xam ne ñu ngi yor nañ x code pour ñu mën ñoo jàppale ñu mën a gën a gaawal liggéey bi si côté iPhone bi. Mm-hmm. loolu leer na mais mën nañoo jàpp ne liggéey bi instant bi bokkoo ko jamono ji bépp autorité sanitaire fii si suñu réew. non non instant bi liggéeyuñu ak benn autorité sanitaire instant bi en tant que ay informaticien rek laay liggéeyal. Mm-hmm. pour ñu mën a kii développer affaire boobu noonu. mën nañoo jàpp ne yaay sénégalaise bu njëkk bu ko fii créé. ben wóoruma wóoruma nag mais en tout cas xam naa ni application bu mel nii protocole bi ñuy utiliser benn la si àdduna bi. Mm-hmm. waa Singapour ñoo ko créé. léegi ñoom bi ñu ko lancé we man si laa ko commencé daanaka jour bi ñu ko génnewee bi ñu defee code yi man jour boobu laa si commencé liggéey léegi nag je pas ba xam. am na ñeneen ñu ci jot a liggéey wala dara. Hmm. ba xam ndax liggéey bi yomboon na ñaata jour nga ci liggéey ba bëgg ba am li nga ci bëgg. yombul parce que dëgg la code source si c'est disponible mais pour nga implémenter ko day laaj liggéey bu bari parce que ñoom dañ lay jox code mais code yi tamit yow yaay xool nan lay def ba nga adapté ko ak yow sa milieu. Hmm. léegi daanaka semaine bi ma lay wax nii am na si ay guddi yoo xam nelawuñu. parce que da ngay jànkonte ay erreurs yoo xam di nga passé guddi gi yëpp nekk si pour lijjanti xool nan ngay mën a def ba avancer par étape la chaque jour ñu rencontré beneen erreur ñu continuer di continuer ba ni muy taxawee nii. Mm-hmm. lépp rek ngir euh, dimbale. yépp ngir dimbale askan Sénégal parce que corona bi ñun ñëpp la sonal. Mm-hmm. bis bu fi jigee fi mu ne nii ñun suñu liggéey dina mën a delluwaat ni meloon parce que instant bii nii même pour ñu liggéey sax c'est tout un problème. Mm-hmm. donc kon plus mu gaaw fee jugee plus mu gën ñoo arranger. moo tax daal ñu jeef lancé suñu projet bénévole bëgg ne dañuy bëgg a xeex corona jàppale autorité yi. du ko mu teel fee jógee mu gën ñoo arrangé. am na solo ban appel ngay lancé jiitu réew mi rawatina jëwriñ bu ñu dénk wàllum wér gu bi bu ma amee appel bi ma koy lancé mooy pour mu jàppale ñu parce que instant bi application bi mënuñu kaa dugal Play parce que application yi mel nii instant bi Play du nangu. benn application buy traité affaire de Covid di dugg ci kii bi te jaarul amul approbation wu ministre de la santé wu dëkk boobu noonu. ñu ko mën a am mënuñ ko amee Play Store. instant bi application mënaguñ ko am si benn téléphone bu dul comme si ñun ñii di tester. Mhm. mais bu buñ ko bëggee parce que côté serveur bi il faut ministère de la santé moo koy gérer ñun loolu noonu ñun duñ ko gérer ñun suñ ko développé ba pare ma jox ko ministère de la santé si lañ ki ciy parewee. Mhm. léegi pour ñu mën ko. kii pour ñu mën a dugal application bi Play il faut ministre de la santé mooy joxe autorisation wam comme ça nga xam ne dinañ ko jébbal suñu liggéey bi yëpp léegi ñun duñ def lu dul def ni utilisateur simple yi rek téléchargé toog di xaar mm-hmm. am na solo lan ngay lancé jeunesse bi comme appel walla comme bon li ma leen di wax mooy que ni corona bi suñu xeex la ñun ñëpp mm-hmm. ñun jeunesse bi yëpp ñu ñoo si war a taxaw pour kii pour éradiquer ko fi mm-hmm. parce que autorités yi ñoom ñi ngi def li ñu mën ñeneen tamit ñi ngi def li ñu mën ku si nekk si milieu bi nga nekk je pense que mën nga am lenn benn pierre booy apporter si édifice bi pour ñu xeex corona mu jóge suñu dëkk bi mm-hmm. na solo maa ngi lay jaajëfal bu baax ok tàggatoo ñi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant tamit développeurs yi nga xam ne jàppale nañ ma bu baax ci application bi ak sama jëkkër tamit ndaxte moom it moo ci gën a sonn. ndaxte daanaka projet bi bu taxawee ba fii daanaka moom la parce que moo ñu jox ay information moom moo ñuy xoolal lan mooy kii ci dëkk beeg yooyu noonu mm-hmm. donc kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp